وبك الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam di fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq te mooy liy leeral diinim bi ñu sukkandikoo téere bi di minhajul muslim bu abubakar aljabir aljazairi rahimahullah bind ñu ko doon topp ba yegsi ci kitaabul buyu ci almaddatu tasia fi l iqaala bu dee ñu yor mool bu bees bi ñu ngi ci 314 almaddatu tasia fi l iqaala kon tey jii moom mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru safar ci 1441 di dëppoog le 18 septembre ci li nga xamee ne nii moom mooy 2022 su dee mbokk yi gis nañu day wax almadatu tansia juróom ñeenteelu bind biñ mën a jël ci wàllu jënd ak njaay mooy fil iqaala ca mooy delloo la nga jëndoon wala la nga jaayoon ñu mën koo tudde xàcc doonte ne léeg-léeg xàcc problème moo koy gën a indi taarifuha suñ la doon xamal mooy lan al iqaalatu hiya fasqu lbayi wa tarkuhu wa raddu samani ila saahibihi la nga xamee ni ni mooy daanaka xacc ak njëg mooy firi njaay mi ngeen jaayoon bàyyi njaay ma ñu delloo njëgg ca ka nga xam ne moo ko moomoon wa silati ila baiha marchandise ma ñu delloo ko kaka jaayoon ida nadima ahadul mutabayiayni aw kilahuma suñu demee ba yëg ni kenn ca ñu doon jaayante de réccu na wala sax fekk ñoom ñaar ñépp réccu loolu day am loolu ana lan mooy atteem ci lislaam atteem ci lislaam mooy tustahabul iqaalatu sopp nañu day nit ki bu ñëwee réccu nga teggil ko njaay ma inda talabi ahadil mutabayiayni heure bu dee kenn ca ña doon jaayante moo ko sakku ci moroomam mutabayiayn laha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dee daana wax ne man aqaala musliman bay'atahu koo xam ne teggil ne mbokk julitam lam jaayonte ak moom aqaala allahu asratahu yàlla dana ko teggil la nga xam ne mooy la mu tabbi woon ci bakkaar yu koy nara alak yowm alqiyaama wa qawlihi wax na ba tey man aqaala naadiman aqaalahu allahu yowm alqiyaama ne képp koo xam ne teggil na am njaay ku réccu yàlla dana teggi mbugal moom yeyoo woon yowmal qiyaama mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu diine ji nekkul diine yi julli koor ak makka jeex na waaye jullit day gëm ni diine aw dundin la buy topp doomu aadama bi di la topp ca tool ya di la topp ca marché ba lépp nga war caa moytu merum yàlla war caa sakku ngërëmal yàlla jàngoon nañ ca gannaaw ña nga xam ne dañuy jaayante fi yéeg teqalikoo wuñu ku nekk islam may na ko mu réccu dañuy waxaale xar mi cent mille waa ji génn cent mille joxe waa ji jox ko xar mi avant ñuy teqalikoo borom xar mi am na droit ne saa waay man daal lii mënuma ko jaay cent mille jëlum xaram waa ji jëndoo it am na droit ne man daal lii mënuma ko jënd ci cent mille jël xaalisam fekk teqalikoo wuñu kooku ku ne am na ci àq jàngoon nañ it ne su dee dañoo joxante délai masalan da nga may jaay oto bi waaye dama koy essayer une semaine de li nga wax bu ci nekkul dama la koy delloo su boobaa it am nañ droit delloonte amma bu dee loolu lépp amu ci waa ji ñëw na jënd ñu jox ko marchandise mu dem moo dem ba mu neex ko mu am réccu daa ji ne man daal dëgg-dëgg lii ma jënd nii njuumte la xaalis boobu waroon naa koo soxlaa ci leneen walla ka joxoon marchandise mu réccu daal ne ah man de lii ma jaay waruma ko woon a jaay dellu ca kam ka jaayoon su boobaa kookee am na droit bañ am na droit bañ waaye nag l'islam danaan ko ngallawaayi bu sàkkoo nga delloo ko njëgam delloo ko njëgam ci yàlla tax bu sàkkoo nga delloo ko marchandisam delloo ko marchandisam te yàlla tax lu waral loolu mooy jullit bi réccu ñëw ne la dama bëggoon lañ jaayante woon ñu teggi ko donte ne mën na yow amoon nga intérêt bu rëy ci jënd gi nga ko jënd wala jaay bi nga ko jaay waaye nga delloo ko xaalisam te yàlla tax wala delloo ko marchandisam te yàlla tax yowmal qiyaama la nga xam ne mooy mbugal ganaroon a tegge ci yow yàlla subhanahu wa taala dala koy teggil loolu it mbokk niñ ko waxe sànq mooy commerçant nga am loo mën a doon lépp luy buntu am ngërëmal yàlla da nga koy sàkku ci ñoom ca xamoo ci lan la la yàlla di yërëme yowmal qiyaama mën na am du ci julli ya wala koor ya mën na am ci loolu la lay yërëme comme ni mu ñëwee ci xadis bu siiw rasul sallallahu alayhi wa sallam ne yowmal qiyaama yàlla dana woo benn ci ay jaamam daa ji na ko yow diw yow day baaxe woon naa la ci alal ci kaza wa kaza waa lan nga ci def nu ko ah yàlla woo ma day lu ma def lu baax lu ma mën a wax xanaa lu dul day bari woon naa di jëflanteeg say jaam ci wàllu bor waaye dama doon wax sama xale yi ma daan fayeekul su ngeen demee képp ku ngeen fekk mu am jafe-jafe baal leen ko ngir yàlla baal ni su ko defee suñu borom na ko kon day baal naa la demal tebbi aljanna loolee mbokk kon muy wane ne heure boo jógee jëm ci commerce jëm ci mbay industrie lu mu mën a doon entrepreneuriat bu mu mën a doon lañ ca war a jiital mooy sàkku ca ngërëmal yàlla jalla wa ala la nga ca war a gën a moytu du perte waaye mooy dajeeg merum yàlla jalla wa ala léegi mu ne ahkaamuha ahkaamul iqaala atte ya addu ci xacc buñ ko tuddee noonu rek te mooy rëccu am njaay ixtalafa hal il iqaalatu tuctabaru fasxan lil bayi l awal aw hiya bay'un jadid boroom xam-xam yi dañ wuute ndax ci ñëw di xàcc marchandise am dañ naan njaay mu jëkk ma lañuy lañuy yàq moom lañuy tekki walla kay dafa ñëw ngir jaay ko njaay mu bees zahaba ila al awwali ahmad wa shafii wa abu hanifa ngiree ne njaay mu jëkk ma lañuy teggi loolu ahmad ak shafii ak abu xanifa wax wa ila saani malik rahimahumullah doonte ne malik mu ne déedéet njaay mu jëkk ma kay wéroon na kon kay dañuy jaayante njaayi mu bees loolu mbokk mi ngi noonu almuhim lam cay tëjee day wane ne ñaari position yépp benn la looloo tax mu ne تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيء في البعض الباقي li nga xam ne mooy rëccu am njaay dana mën a am te bu dee lenn la dafa yàqu leneen la des fa masalan waa ji ñëwoon tey jënd fii ay xar bi mu jëndee xar yu yóbbu ci yoon bi am na xar yu ci faatu mu ñëw ci waa ji na ko kat lañ jaayante woon xar yi des dama bëgg nga delloo ma njëg gi loolu yi dana doon lu dagan li muy dagana ci ceeb dagana ci lu mu mën a nekk mooy manes naa wecci lenn la wecci bu la ca des benn waay ngi nii masalan ñëw jëndoon ci masalan lu mel ni ñaari montor nga jënd ñaari montor ci borom bitig bi dem ba yàgg mu rëcc daan ñëw ah diw man day wax dëgg yàlla dama soxla xaalis dama juum waru moon jënd ñaari montre benn laa waroon a jënd delloo ko benn bi loolee yépp dana dagan ay ñu delloo lañ jëndoon lépp wala ñu delloo genn wàll gi loolu day dagan ci wàllu xat ñetteel bi ci mujj laa yajuuzu fi liqaalati an yunqasa samanu aw yazid wa ila fala iqaala moo ne su ñu demee nag bay xàcc ak njëg kenn warul wàññi njëg kenn waru ko yokk lañ ko jënde woon rek lañu war a delloo ca bu dee dañ ne dañ koy yokk wala ñu koy wàññi loolu tuddatul la nga xamee ne nii mooy ak xàccum njëg wa asbahat xiina xizin bay an jadidan kon su boobaa day nekk njaayin mu bees tajri alayhi ahkaamul bay'i nga xam ne day aju ca moom attey njaay bi kaamiliha min isti min istiqaaqi shufa ci loo xamee ne nii dana ca aju lii di shufa jàngoon nañ ko ci li passé mooy nit ki nga bokk ak moom tool wala nga bokk ak moom loo xam ne nii ak kër bala nga ko jaay fokk nga laaj ko ndigalam sinon boo ko jaayee keneen am na droit ñëw xacc ko moom wa ishtiraatu qabdi fi taam des na ca chartu lii di jël ca ñam wa wa ma ila zalika min sigati albay wa gayriha ak lu aju ci loolu ca la nga xamee ne nii day aju ci nañu war a tërale ci waxinu njaay ak lu mel noonu lim bëgg a wax fii rek mooy xàcc bi nga xam ne lislaam da koo xam te ñu gërëm ko mooy loo xam ne dañoo ñëw delloo ko te loolu lu ci bari day doon loo xam ne yàggul amma nag bu doon te ne dañoo dem ba jëmmi jamono waa ji jëndoon ci nit ki benn kër wala jëndoon ci nit ki benn tool ñu dem ba jëmmi jamono mu ñëw bëgg ko koo jaayaat loolee lu mën a nekk la te bu boobaa prix tool ba wala prix kër ga mën naa yokk loolu moom nekkul ci lu ñuy tuddee ak xàcc ci lislaam loolu mbokk moo aju ci bind boobu nga xam ne mooy bind bu njëkk boobu ñu jël bala ñoo dem ci beneen bind su doon te ne am na ci koo xam ne am na lu mu ci doon laaj bala mu koy fàtte incha allah wa ilaa ñu jël beneen bind su dee am na koy laaj ci marchandise boo xam ne dañ koo delloo mi ngi noonu wala xaalis bu ñu jëlee waat ci wàllu njaay naam tu'tabaru dañ koy jàpp tu'tabaru mooy loolu dañ koy jàpp mi ngi noonu mi ngi noonu waaw naam bismillah naam waaye salaam ndax ki nga xam ne dañoo jënd ci moom mu koy delloo si am na droit bañ ah kay am na droit bañ maadaama teqalikoo nañu ca chartoo wu ñu woon délai teqalikoo nañu ca chartoo wu ñu woon délai moo tax yonent bi alei salaam ne ne albaayiaani fi lxiyaar maa lam yatafarraqa ñaar ñuy jaayante am nañ choix ku ne dellu gannaaw fii teqalikoo wuñ amaa bu ñu teqalikoo waa ji ñëwaat di rëccu loolee jaamu yàlla la sopp nañu nga nangul ko loolu waaye bu dee da nga ne ko déedee it loolu it islam du la ci toppe ci dara wallahu subhanahu wa taala aalam naam dafa dafa dafa non wax waxaatal ma de nga dafa doon jaay waaw waaw waaw xam naa xaw na jaxasoo ci woon mais daal li ma bëgg a wax ah mu ne waaw benn waaye moo ñëw ci benn magasin di jënd benn produit waaw te ba mu yàgg ndeke produit bi dafa primé waaw mu ñëw ne pour mu remboursé ko waaw waa ji delloo ko xaalisam mu ne ko déedéet damay jëlaat beneen produit doo ma delloo sama xaalis
waaw mais am na am na am na p- am na produit wala kulli xaal loolu moom beneen kaa la ndax dafa wax ne daa ñëw waa ji bi mu ko jaayee marchandise fekk marchandise mi dafa périmé képp koo xam ne dañ laa jaay ca ka lay jaay am ayib bu nekk ci njaay mi te borom njaay mi waxula ko kooke am nga droit ñu delloosi ko wala am na droit delloosi ko léegi nag mu ne bi mu ko delloosee ci waa ji waa ji yëkkati xaalisam jox ko mu ne ko déet danga may jox beneen bu périmé wul naam maadaama moom loolu loolu la doon jënd am na droit ne ko jox ma beneen boo xam ne nii périmé wul ndax euh, coono ba nga xam ne teg na ko ci ci loolu ah waaw moom laa wax man kay loolu laa wax dama ne loolu laa wax maadaama waa ji am na produit bu périmé wul te moom jox na ko xaalis ba pare jox ko benn bu périmé mu dem ba ñëwaat teg ko coono boobu yëpp te bu périmé wul mi ngi fi kon kay na ko jox bu périmé wul rek jàmm na ñooy mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal daal liñ ci mën a wax mooy xàcc yi ñuy wax mooy sans problème mais bu dee waa ji lam jaay dafa am ayib yoo xam ne ma nga ca te waa ji nga xam ne ba muy jënd leeraluñ ko ayib boobu mu dem gis ayib bi ñëw wax ko waa ji am na droit delat xaalisam wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam kon bismillah naam masala bi nga doon leeral waaw waaw masala bu jëm ci lan waaw waaw waaw li ma doon masala bi mu doon leeral moo di ne ni waajoo xam ne dafa jëndoon lam jëndoon yàgg na xàcc ko dem ba jimmi jamono mu ñëw bëgg koo jaayaat laa ne su boobaa duñ ko tuddee xàcc loolee njaay mu bees la mën na wàññeeku comme mën na doon loo xam ne ni lu yokku la loolee la ñuy wax ca ca wàllu googee amma liñ ciy bañ rek muy loo xam ne nii lu direct la bu dee lu direct loolu dañ koy tudde bay ul ayna masalan waa ji ñëw jënd fii benn frigo à deux cent mille francs jënd na ko ci ci turam masalan ne waa ji ah yoral naa la deux cent mille ba pare wëlbati ko jaayaat ko borom bitig bi loolu la ñuy tudde bay ul ayna mais bu doon frigo bi moo ko jël yóbbu ko moom ko fay na ko moo ko moom dem ba jëmi jamono mu ñëw bëgg koo jaayaat islam du wax ci loolu dara mais bu dee ne wàllu naxante boobee pour daw riba bi loolu moom la ñu tuddee bay ul ayna wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw waaw waa ji nga xam ne dafa ñëw di xàcc si lañ ko jaayoon nga ne ko déedéet lii du ma ko jël mu ne la waa wàññil prix bi ca ca jël ko loole yow waruloo ko jël ndax moom daa ñëw di xàcc si la nga man mooy imma nga nangul ko loolee ca yàlla tax waaye waruloo ko jël di ko jëlaat ci loo xamee ne ni lu néew la su ko defee moom joxoon na la masalan cent mille francs ñëw ci tànk dem na indiwaat ko nga ne doo ko xàcc mën na laa jël ko quatre-vingt-dix mille yow nga jël delloo ko quatre-vingt-dix mille lekk dix mille am garde war sa marchandise ci neen loolu dee su ko def kon li nga man mooy imma nga nangul ko xàcc gi wala nga delloo ko wala wala mi ngi noonu nga nga bàyyi ko mu dem mais amoo droit di ko jël loo xam ne dafa gën a néew njëg googee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xanaa lu dul comme masala bi ñu tëje mooy moo demoon ba njaay ma moom fàtte nañ ko dem na ba jëmmi jamono moom moo soxlawaat xaalis ñëwaat bëgg a jaay loolu nga xam ne njaay mu bees la waaye maadaama ci tàng-tàng bi la ñëw na day xàcc amoo droit wàññi marchandise mi amoo droit yokk marchandise mi wallahu subhanahu wa taala alam naam kon ñu dem ci bind bi nga xam ne moo ci tege mooy alfaslu rabi' ñeenteelu teqale bi am ci wàllu jëflante te mooy fi jumlatil uqud ci li nga xam ne dañ koo tënk ci fas-fas yi nit ñi di fasante seen diggante kóllëre yi ñi nekk di fasante ngiree mën a liggéey mu ne wa fihi samani mawaat bunt bi dana la ci jàngal juróom ñetti bind almaadatu lula fi sharika bind bu jëkk bi mooy li ñuy tuddee associé mooy la nga xam ne ab service la boo xam ne ay nit dañ ko associé mashruiyatuha nan la ko l'islam yoonale alsharikatu mashruatun bi qawlihi taala بقول الله تعالى فهم شركاء في الثلث يلا ترل نا اي نيت من نانيو بوك علال بوك نا سي لولو تاي جي بن واي نغي فات بايول اي ويجور بايول اي دو mo am frère yum bokkal benn ndey frère yooyu nga xam ne dañoo bokk ndey su dee ñaar lañu ba baa ñuy nekk ñaar fukk lañu am ci alal ji mooy ceeru alal ji ceeru alalu waa ji ñoom ñoo ko moom na doon loolu xaalis liquide la wala loolu doon matériel la wala tool la wala kër la ala kulli xaal ceeru alal ji ñoom ñoo ko moom wa qawlihi taala wa inna kasiran min alxulatai la yabgi baaduhum ala baad suñu borom nag nee na lu bari ci ñi associé lenn ca ñoom dañuy jiggi dayo ca kaw la ca des ca loolu mbokk ak bari tey ci suñu jamono ji ay société yooyu dégg trois mois sans salaire six mois sans salaire ay xale yu ñuy liggéeyloo kenn xamul kenn du leen embauché di leen teg loo xam ne nii attan nañu ko suñu borom mu ne la ëpp ci ñi nga xam ne dañuy associé da ngay gis lenn la dañuy bew di lor ña ca des boo demee aaya ba da cay teg ne ila lazina amanu wa amilu salihat wa qalilun ma hum lu dul ña gëm yàlla di def lu baax ci yàlla nee na ñu néew la te loolu ba ko yàlla wax mooy ba alxuraan di wàcc la yàlla ne woon lu néew la suñ demoon tey ji nag kon mi ngi noonu borom bi subhan wala boog kon loolu la yàlla wax yow mu yor sa téere mu ne wa maana alxulata alshuraka ñooñi yàlla tudde ñu jaxasoo ay mooy ñu booloo bokk dara bi qawli rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa bi qawli rasulullah sallallahu alayhi wasallam bokk na ci wax yonent bi yaqulu allah ta'ala ana salisu sharikayn ma lam yakun ahaduhuma sahibahu yonent bi alayhi salaam nee na yàlla day def ne ñaar ñu jóg associé danaa ñoo ñetteel leen feeg amul kenn ku wor moroomam wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yaddu llahi ala sharikayni ma lam yataxaawana loxo yàlla day ay ndimbalam mi ngi ci ñaar ñi nga xam ne dañoo booloo ci alal feeg warante wuñu lii mbokk lum ñuy jàngal mooy bokk na lu barkeel ay jullit bokk projet nañ ko tuddee ay GIE lay doonam société lay doonam service la ma doonam ay jurit bokk ko loolu day tax yàlla barkeel ko yàlla ànd ak ñoom waaye bi charte mooy ku ne laa yee biir sa morom su amee ko wor rek yàlla seetaan leen loo tax ka gën cekk ngay associé mooy ko ragal yàlla loolu mi ngi noonu allahuma lu dul ni bokk na lu xaw a jafe ci sun jamono yi tey rawatina nag ñun sénégalais ñun la ci yàlla gën a natt mooy lu bari ci yeneen nationalité yi liñ ciy réussir sax day xaw a jafe ci ñun trop ñun mi ngi noonu xëy na suñuy aada it moo baaxul ci xew-xew yu dul jeex yu ñuy xewal ca nekkul ci yeneen aada yi ngénte yaag céet yaag kenn xamul ala kulli xaal taarifuha buñ la doon xamal lii di société boobu associé boobu naka lay demee alsharikatu hiya an yashtarika isnan fa aksar fi malin istaxaquuhu bi warasatin wa nahwiha mu ne société buñ koy wax mooy ñaari nit daje wala lu ko ëpp mën na nekk deux cent personnes ñoo daje ci alal joo xam ne ñoom ñoo ko yeyoo ñoo ko moom na doon dañ koo doon wala lu mel noonu masalan seen bàyyi dee na bàyyi ab tool bàyyi ab usine bàyyi kër gu ñuy luye ñu ne daal lii buñ ko seddoo nañ ko garder nii lu ci juddoo ñu ñëpp ñu bokk ko aw jama'uhu min baynihim aqsaatan li ya'malu fihi bi tanmiyatihi wala boog fekk ñoom ñoo dajee seen alalu bopp ci la nga xam ne nii mooy cotisation yu ñuy dajale ngir ñu jëf ko ci ful loole fi tijaratin aw sinaa aw zaraa wa hiya anwa na doon loolee dañuy jóg ñu ne nañ dajaloo dugg ci commerce dugg ci la nga xam ne nii mooy wàllu technologie yi dugg ci wàllu mbay doonte ne ni booloo googu day nekk ñaari façon booloo anawul awal booloo gu jëkk sharikatul aynaan mooy mbooloo boo xam ne alal lañ boole alal lañ boole wa hiya an yashtarika shaxsaan fa aksar mimman yajuuzu tasarrufuhum fi jam'i qadrin min maalin muwazza'an alayhim aqsaatan ma'luma te mooy mu daal di dajaloo ñaari nit wala lu ko ëpp ñoo xam ne islam nangu na seen jëflante majeur nañu ñi ngeeg seen i xel ñu dajale alal bu ñu séddale seen diggante ci ay cir yoo xam ne dañ koo xam aw ashama ñu ngi doon aw ashuman muayyana muhaddada wala ba tey it muy loo xamee ni nii ay lu ñuy jagleel nit ku nekk ci loo xam ne dañ koo ràññee tëral ko te mooy ay cër rek ya'maluna fihi ma'an li tanmiyatihi ñoom ñaar ñépp nag ñu àndi di ci liggéey ngir ful ko wa yakunu ribhu baynahum bi hasabi ashumihim fi ra'sil mal bu ko defee bénéfice ba nekk ci seen diggante ci ku nekk la nga xam ne moom nga am ca fond alal ja muy tudde fond de commerce ba kama takunu alwadia ay wal xasaara na muy nekkit perte ba bi xasbi al ashumi kazalik na mu nekk perte ba ci kemuk la nga xam ne mooy cotisation yi naka noonu mbokk ala kulli xaal li muy wax nii rek mooy tey dañoo jóg tëral benn société société boobu nekk ay action tey ñu ne masalan ñaar lañu ku ne indi na un million ñu ànd liggéey lépp luñ ci am ci bénéfice dañ koy xaajoo seen diggante liggéey nañu perte nañu perte boobee dañ koy xaajoo seen diggante bu doon te ne nag kenn ci ñoom tey moo indi woon deux millions kenn ki indi un million kon bénéfice bu ñu amatee ñetti cër lañ koy def borom deux millions ñu jox ko ñaari cër borom un million jox ko benn cër perte bu amee ci alal it ñetti cër la ñu def perte bi borom 2 millions perte ñaari cër kii am 1 million perte benn cër loolu valable ci ñaari nit ñi mooy valable jusqu'à 50 personnes ku nekk selon la nga am ci action yi nga ci am say bénéfice noonu lay toll say perte it noonu lay toll mi ngi noonu mu ne it dañuy gis wa li kulli waxidin minhum alxaq fi tasarrufi fi sharikati bi asalatin an nafsihi wa bi wakalatin an shurakaihi su boobaa ñooñi nga xam ne ñoo bokk société bi ku nekk ci ñoom day am aq liggéey ci taxawal boppam mën a it teewal ñam ko bokkal ci fu mu mën a nekk fa yabiu wa yashri wa yaqbid wa yadfa wa yutaalibu dayn su boobaa moom mën nay jaay di jënd di jël di joxe di sakku ñu fay bor ya wa yuxaasimu wa yaruddul bil ayib naka noonu di mën a dagg sante lañ jënd ca moom ayib mu delloo ko wa bi ixtisaar yafalu kulla ma huwa fi maslahati sharika mooy mën naa def lépp loo xam ne dafa aju ca société ba maadaama ñoo ko bokk te ñoom ñëpp ñoo ci bokk àq ba nga xamee nii am nañ ko ci loolu loolu mbokk mooy la muy leeral ci société boo xam ne xaalis lañ tëral ngir def ko ngiree nag mu dëppoo ak sunna ay dëppoo ngërëmal yàlla mu indi ci juróom benni mbir yu ñu war a xam mbir bu njëkk ba wali sixati haadihi sharika shurut ngiree ab société mën a të tëdd tëralin bu rafet ci lislaam fokk juróom benn charte yi am ci an takuna bayna muslimayni mu nekk diggante ñaari julit is la yu'manu ghayru muslim an yata'amala bi riba ndax ki nga xam ne du julit nga bokk ak moom ab société alal ja mën na caa jël jëfandikoo ko ci riba aw yudxila fiha maalan xaraman wala mu dugal ci alal ju xaram illa an yakuna tasarrufi min bayin wa shira bi yadi lmuslim xanaa lu dul ba ñuy dajale alal ja moom ñu boole cab yéeféer waaye lépp lu aju ci doxal société bi jurit bi moo ko yor fa innahu la mani idan li adami alxawfi min idxaali almaali alxaram ala sharik su boobaa ragaluñu associé ak bu yéeféer ngiri la cay aju lépp julit bi mooy ka nga xam ne moom mooy doxal loole mooy mi ngi noonu fan yi passé rek am na ku may laaj dafa am moo ñu mu àndal ubbi benn restaurant mu am ci nag benn chrétien léegi ñu dem ba ci kanam ñoom duñu chrétien bi ne moom dafay jël sàngara di ko jaay yéen seen yoon néew ci sàngaraam lay jël di jaay ci biir restaurant yaa ngi dégg loolu bi moom mën na ko nag loolu waru leen koo nangu maadaama restaurant bi ñëpp a ko bokk yéenay bokk di ko fay seen restaurant la waru leen nangu ñu jël sàngara di ko fi jaay su bëggee jaay sàngara na wut beneen place mu jaay ko foofee te loolu it gis ngeen muy wane ne kon heure booy jëflante ak yéeféer la nga xam ne jox ko carte blanche alal ji mu koy dugal nu mu ko neexee fokk dana la lekk loo riba kon mën ngaa associé ak yéeféer waaye bi charte lépp luy aju ci dogal alal jeefe génne sa loxo jurit lay nekk mi nga noonu loolu it danañu bàyyiloo xel li ñuy xewal tey mooy ay action jurit ñi fu ñu dégg action rek dem jënd waaye nag fa ngay jënd action ñu lay jox ay dividende war ngaa xool ñooñu seen jëflante bari ba amu ca ba jaay naka su dul noonu amu ca loolu lépp war nga ko bàyyi xel ñaareel bi charte bi mooy an yakuna rasul maal maaluman wa qistu kullu waxidin min ashuraka maarufan ab société ba la ñu koo départ war nañoo xam société bi capital bi ñaata la ñàkk siqit ku nekk ñu xam ñaata nga ci am mi nga noonu capital bi 10 millions la cinq personnes ñoo ko siq ki am na ci 2 millions ki am ci 500000 ki am ci nangam fokk ñu xam ku ne ñaata nga ci am li anna ribahu wal wadia mutarattibaani ala maarifati rasil maal wa suhumi fihi lu waral loolu mooy mbooleem bénéfice ba cay jóge ak la nga xamee ne nii moom mooy perte ba cay jóge dañ koy teg ci xam bopp alal ja naka la tëdde ak it ku nekk cir ba nga ca am comme niñ ko waxee sànq su ko defee nit ñi dañ leen di jox seen bénéfice ci lu méngoog lañ am ca société ba wal jahlu bi ra'sil maal aw asham shuraka yuaddi ila akli amwali nas bil batil wa huwa haram li qawlihi taala mu ne nag bu dee société bi xamuñu moom capital bi ñaata la ñi ko siqit ku nekk xamuñu ñaata nga ci am loolu bu amee fokk dañu lekk alali nit ñi ci neen te suñu borom mu ne wala taakulu amwalakum baynakum bil batil bu leen lekkante seen alal ci la nga xam ne mooy ak neen ñetteelu charte bi an yakuna ribhu mushaa'an yuwazza'u bi hasbi suhumi fala yajuzu an yaqul innama rabihnahu min da'ni fa huwa li fulaan mooy heure bu ñu am société lépp lu cosaanoo ci bénéfice ci société bi dañ koo war a séddale ci ak yemoo waruñoo wax ne lu juddoo ci lii diwa moom lu juddee ci lee diwa moom masalan tey jii bu doon dañuy commerce ci ak jur ñu ne léegi dañuy jënd ay xar ay nag ay bëy alal ji ñoo ko bokk bénéfice bu ñu am ci nag ñi ci nag yi diw moo moom bénéfice bu am ci xar yi diwa moom islam du nangu loolu mboolem bénéfice bi yépp la ñuy boole séddale wala perte yépp ñu boole séddale mu ne it la buñ ne woon wa ma rabihnahu min alkataani masalan fa huwa li fulaan lama fi zalika min algharar wa huwa muharram buñ ne woon tey ji dañuy jaay ne waaw tisi sàngam day bénéfice ba ca am diwa koy moom leneen li diwa koy moom déedéet fokk dañuy bokk risque ci lépp wala bokk am avantage ci lépp mi ngi noonu ñeenteelu charte bi أن يكون رأس المال نقودا ومن كان لديه عرض أرض ف- وأراد الإشراك قوم عرضه بنقد بسعر يومه ودخل في الشركة heure bu ñuy tëral ab société duñu nangu kii indi xaalis kii indi jur kii indi kër déedéet société bi lépp ci xaalis lañ koy def ki bëgg a bokk ci société bi indi kër dañu naan kër gi ñaata lay jar ñu ne temps ñu ne kon am nga fi temps de xaalis yow tool nga am tool bi ñuy évaluer ñaata lay jar ñu ne temps ñu ne kon temps nga fi am ci xaalis waaye duñ ko considérer ay kër ki tool li an al uruda majhulatu al qayima wal muamalatu bil majhul mamnua shar'an la nga xamee ni nii moom mooy am marchandise boo xam ne xamuñu valeur am ñu dogal ko ci jëflante ñuy jëflante jëflante goo xam ne ka ñuy jëflanteel xamuñu lan mooy ak xam loolu yi charia da koy tere lama yuaddi ilayhi min tadyi il xuquq wa akli maali nas bil batil ndax loolu mën na sànq sànq a yàq ak lekk alal nit ñi ci neen juróomeel bi an yakuna al amalu bi xasbi sihaami ka ribxi wal wadia heure bu ñuy tëralee ak société liggéey ba ca aju dafay aju selon ku nekk la nga ca cotisé tey jii ñaari ñett a ngi kii indi deux millions kii indi un million ñii war a liggéey dañuy xam ne aqu liggéey bi ñetti wàll lañ ko war a def bu doon ay heure ñetti waxtu lañ ko war a séddale borom ñaari millions yi mooy gàddu ñaari heure ya ak frais ya ca aju ak ka nga xamee ne nii moo am un million ba gàddu la ca des ñu dee loolu mooy la nga xamee ni nii mooy aqu liggéey ba ca ba wàllu boppam mu ne fa man kaana nasibuhu fi sharika rubu fa inna alayhi amalu yawmin min arbaati ayam mislan tey jii bu doon joxe rek misaal koo xam ne benn société ngi nii moom kaar bala moom bu doon ak jur gu ñuy sàmm dañ naan ko kon yow ñeente fa nekk benn jour yaa koy sàmm ka ca am genn wàllu ñu ne ko kon yow ñaari ñeenti fan yu ne ñaari fan ngay sàmm ila axiri wa in istaajaru aamilan fa ajratuhu min rasi almaal bi xasabi suhumi shuraka bu doonte ne société bi dañoo embauché kenn nit su boobaa lañ koy fay pay ga dañ koy xool ci ku nekk sa kem ba nga am ci société bi loolu lañ koy séddale la nga xam ne moo ca mujj wa in maata ahadu sharikayni batalati sharika ay nit buñ jëfalantee ci benn société keroog ba kenn ka dee la société bu moom arrêté la ca des kay wa kaza il janna masalan su dee kenn ci ñoom it daa teqali ko xelam dañ ñaan société bi moom arrêté nañ ko wali warasati l mayit wa awliya il majnun su boobaa nag ña donn ka dee wala ñiy kilifay ka teqali ko xelam xallu sharika su la neexee ñoom daa di firi tas la nga xam ne mooy société boobee ay tegg ci seen loxo ñoom aw imdaauha bi aqdiha al awal wala boog ñu wéyal la ko ca na nga xamee ni nii mooy pas-pas bu jëkkam ba waaye moom ka nga xam ne moo ko façon faatu moom wala mu def kooku ay mbiram waxatuñ ko ñu ñëw gannaawam nag bu leen neexee yeme la ko foofu bu leen neexee daa di koy wéyal ci wàllu googee bokk jàpp naa manes na doyloo loolu incha allah di ñaan yal na yàlla barkeel suñu mbooli mi jëflente te wërsëgal ñu ci gërëmam adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli haal société yooyu moom mi ngi am ba léegi doomu aadama yi lu ñu yàqu-yàqu du tee balaa du ba baa doon di tukki suñu borom yàlla dana am ñu musal yàlla na yàlla boole ñu ci moo tax suñu borom tëralal ñu ni yi di wàllu société lu ëpp ci nit ñi dañuy bew lenn ca la ca des bew lenn ca la ca des ñaari côté la mooy ña nga xam ne ñooy kilifa ya noggutu ña ña leen di liggéeyal suñ jamono tey jii nag daanaka li gën a bari sax mooy ñay liggéeyal kilifa ya ñooy noggatu kilifa ya bu ko defee lu bari ci nit ñi am naa sama benn waay nee na ma imam jeexal naa sama famille jeexal sama famille soxna yaa ngi dégg grossiste la yoroon bu dox bu mag waaye nee na xale boo fi indi balaa weeram mu def la loo xam ne doo ko mën a netti ba jeexal naa samay mbokk daa mujj sax grossiste ba daanu ala kulli xaal kon loolu mooy li am bokk na li ñu doon wax sànq mooy ndawal Sénégal liggéey liggéey ak moom jafe na trop suñu aada moo baaxul suñu aada baaxul yal na yàlla soppal ñu suñu aada tey jii mbokk takk soxna Sénégal soxna lu muy jar dara da ngay dem ne suñu benn góorub caamin dafa demoon di labat benn soxna ñu dem ñu limal ko limal ko limal ko bis muy ñëw di jiite timis di taay di taay di ko li muy taay yëpp mi ngi xalaat dañ koy limal bu mujj mu waaye mënu ma ko sax waaye waaye ala kulli xaal loolu la bu dee ne ci wàllu takk takk takk takk soxna paase na ngénte Sénégal ñaata la ngénte Sénégal ñaata la day gis ndaw loo xam ne soxnaam mi ngi ëmb mi ngi dajale dajale ndey kot kot kot kot ndeysaan ba dajale teg deux cent mille fee de côté ne dama koy ngénte ban soxna sa amee doom mbub mi muy sol la ñu ne la deux cent mille lay jar naar yi amuñu ko chinois yi amuñu ko tubaab yi amuñu ko ni ñuy ngénte Sénégal amul fenn ci Sénégal amul fenn yaa ngi dégg loolee dem loolee dem ñu teg ci nag diine ji ñëw xew-xew yi am ci diine ji fii ah yow dañ naan munoo ñàkk a dem boo demee foog nga dox nangam foog nga joxe nangam foog nga joxe nangam waaw ndaw loo xam ne yaa ngi ci société yor keesu jàmbur war a def yooyu yëpp lan moo lay muccal lu jafe la nga mucc loolu moo tax ba lu ci bëri au Sénégal gis ay ndaw ànd ak ñoom jëf la ci société doon loo xam ne lu jafe lool la la ko waral nag mooy diine ji manqué na xam-xam bi manqué na aada ji baaxul mi ngi noonu yal na yàlla laabal naam naam bismillah naam wala kulli xaal ñoom ñoo moom seen kër ñu dëppoo ne dañ koy bàyyi di ko luye léegi ñaar mën na nekk kenn ci ñoom dem ba jëmmi jamono mu ne ah man day dama soxla sama wàll ci kër gi su boobaa ña nga xam ne ñooy yeneen frère ya liñ man mooy évaluer wàllam génne ko jox ko suñ ko mënul dañuy jaay kër gi kenn ci ñoom dee na am na ñeneen ñu koy doon su boobaa it même chose dañuy évaluer la mu am ci kër gi ñoom ña ko seq cotiser jox ko ay ndonom yóbbu ko ñu continuer gérer seen kër bu dee amuñu ko on est obligé jaay kër gi jox ko wàll mooy daal islam moom wàllu ndono tant que ñi ko ñi ko séq dëppoo nañ ci ne duñ ko séddoo islam du leen koy wax dara amma buñ demee nag ba kenn naa man kat dañ mu jox sama aq su boobaa ñu séq mbir ma imma ñu cotiser jox ko aqam wala ñu jël lañ donn jaay ko jox ko aqam wallahu subhanahu wa taala alam di leen jox seen wàll waa ñi ko war a doon bu dee ñoom ñoo ca d' accord okay mooy mooy cela même chose moom lañ doon jàng sànq ci wàllu sharika mooy waa ji bi mu dee moom contrat société moom jeex na ña nga xam ne nag ñoo koy doon parce que dana am na ay doom am na soxna ñooñu ne ah ñun kat la suñ bàyyi daan jot ci location bi ñun dañ koy bàyyi ci kër gi ñuy ñu ñu continuer jox loolu kay mooy la gën su ko defee niñ ko waxee rek tant que daal yéen a ngi dëppoo ci ne nañu ànd ci lii islam du leen ci wax dara doodul kenn ne nañ ma jox sama wàll wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam mu ne ah ñu koy benn benn waaw baax na incha allah waaw waaw waaw incha allah yal na léeg-léeg doomu aadama da ngay fàtte waaw incha allah dañ ci gën a bàyyi xel ñaan yàlla yàlla dimbali ñu waaw xanaa kon ñu mujj ci mbokk bee rek waaw waaw. waaw loolu beneen façon société la. loolu dañ ko jàng insha allah ci kanam dañ koy tudd loolu mudaraba koo xam ne moom xaalisam la yor kii moom am ay pexeem ñu ànd liggéey loolu insha allah dañ ko jàng ci bind yi nga xam ne moo nekk ci kanam mbokk kon mi ngi noonu ñi tëjee lañ tàmbale woon mooy ngalawaay yéen ndaw ñi xam leen ni liggéey jaamu yàlla la heure boo taxee ci buntu liggéey sàkku ca ngërëmal yàlla bala nga caa sàkku benn intérêt ragal ca merum yàlla bala nga caa ragal lenn lii amul kenn ku koy yóbbaale lu dul yàlla dana ko jàppale barkeel ab liggéeyam yal na yàlla barkeel suñu liggéey may ñu afiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain